il est minuit. Josette Kali. Il est 0 heure sur la 98.5 Sud FM, Sen Radio, tout de suite le bulletin d'information. Les 12 jours du couvre-feu instauré par le chef de l'État Macky Sall qui ont démarré le 6 janvier dernier ont pris fin ce dimanche, ont pris fin ce dimanche et jusqu'à l'instant, aucune information de prolongation n'est pour le moment disponible. Le cinéaste Cheikh Ngaye Doba est décédé ce dimanche à l'hôpital principal de Dakar. Cheikh Ngaye Doba était membre du Conseil économique, social et environnemental. Il était aussi impliqués dans la vie politique sénégalaise. Dans le cadre, dans le secteur de la culture, Cheikh Ngaye Ba est considéré comme le révolutionnaire du cinéma sénégalais. Dans les années 80, il était un fervent militant de l'émergence du cinéma. Écoutons Baba Diop, journaliste critique de cinéma et universitaire.

la fête commence, donc euh, Kheu Kheu, qui était presque un manifeste de cette jeunesse qui voulait révolutionner le cinéma et qui voulait, disons, réfléchir à notre vision du cinéma, c'est eux qui avaient théorisé le plan Thieboudienne, qui avaient quand même essayé de voir dans nos traditions comment effectivement faire un cinéma qui nous ressemble et qui n'a pas seulement les règles convenues. donc, euh, depuis, effectivement, il a traîné des scénarios, mais il n'avait pas eu l'occasion, en tout cas, de revenir, disons, au cinéma, comme l'ont fait les Samba Félix, William Bay, Mais il était au service du, cinéma. Il était un grand défenseur de notre cinéma. Il faisait partie de la FEPACI. Il était quand même un des représentants régional de la Fédération panafricaine du cinéma. Donc, même s'il n'avait l'émergence de notre cinématographiste ici. Et tout le monde le savait, il était à tous les rendez-vous du cinéma, accompagnant les films, aussi bien à Ouaga qu'aux journées cinématographiques de Carthage. Près de 5000 personnes interpellées par la police durant le couvre-feu dans la banlieue dakaroise. C'est le bilan du commissaire central qui ajoute que les interpellations sont suivies d'amendes forfaitaires pour divers délits. Les manifestants lors des deux premiers jours du couvre-feu au nombre de quatre 80 sont déférés pour trouble à l'ordre public. Écoutons Madjibou Leye, le commissaire central de Pikine Guédiawaye avec El Hadj Moussa Euh, disons que dans la semaine, euh, la première semaine du 7 au, au du 10 au, au, 17, on a interpellé 1240 personnes. Dans la semaine du 17 au 24, on a interpellé 1204 personnes. Et dans cette dernière semaine, on en a interpellé 1620. Donc euh, si vous faites le cumul, vous aurez de 5000 personnes qui ont La première semaine, on a, a eu million 700 et quelques mille. La deuxième semaine, on a eu 1000, 1 et mille. Et, et cette semaine-ci, on a eu 3 700 et quelques mille. Ceux qui sont interpellés euh, pour euh, non-respect du port de masque, on leur fait payer une amende forfaitaire de francs CFA contre reçu. C'est différent maintenant de ceux-là qui sont pris dans le cadre du couvre-feu, qui n'ont pas respecté le couvre-feu. On leur fait payer une amende de francs Et pour cela, qui ont eu à manifester les deux premiers jours du coup, du de, de, de l'état d'urgence, euh, euh, euh c'était au nombre de 80 dans la banlieue. Et ces gens-là ont été effectivement déférés au pour trouble à l'ordre public, euh, euh, euh manifestation non déclarée, voie de fête, actes de vandalisme, etc., etc. Ceux-là ont été déférés, ils ont effectivement été placés sous mandat 98.5. Josette Kali jaajëfal naa leen ci déglu bi bulletin d'information bi dañu koy tàmbaleek lu ñel couvre-feu gi nga xamante ni njiitum réew mi sampoon na ko mu appaloon ko nag si ñaar ci fukk ak ñaar ci ay bés te ñu tàmbali woon ko ci juróom benn fànn ci weeru janvier gi ñu ne jeex na ci dibeer gi waaye ba fu may wax ak yéen nag benn ci information buy wone ni dañu koy wéyal déggaguñu ko cinéaste bi di wuyoo ci turu Cheikh gaydo Ba génn na àdduna ci dibeer gi ci hôpital principal bu ndakaaru Cheikh gaydo Ba bokkoon ci conseil économique social et environnemental moom it nemmeeku nañ ni doon na yëngu bu baax a baax ci lépp luy politique ci mim réew ci wàllum culture nag Cheikh gaydo Ba jël nañ ko ni bokk na si ñi nga xamante ni ñoo soppi doxalinu cinéma bu Sénégal ci atum euh, année euh, ci année quatre-vingt yi moom euh, bokkoon na si ñi nga xamante ni dañu doon yëngatu bu baax a baax ngir yokkutew cinéma ci réew mi ci loolee ñu teewlu ki nga xamante ni moo di Baba Diop nekk journaliste ak it critique de cinéma nekk it universitaire. Ndeye Doba maanaam daal si cinéaste yi nga xam ne en tout cas ràññewoon nañ leen. film yi mu def yëpp film yu mag a mag parce que film bu bi mu defoon mooy xew-xew sa euh, kooku année quatre-vingt la année quatre-vingt nag si la cinéaste yu ndaw yi après ñoom Sembène ak ñoom Ababacar Samb même euh, même génération ak euh, Mawal yi nga xam ne ñoom soixante-dix la ak génération bi nga xam ne ñoom ñoo leen jiitu woon donc génération des années soixante ak ensuite beneen génération des années soixante-dix am nag neuf cent quatre-vingt am daal ay xale yoo xam ne ñoom ci cinéma yi ñoom itam wane ni seen euh, maanaam daal seen gis-gisu cinéma ngay doobaa nag si ñoon bokk mooy ñoom Samba Félix ñoom William Mbaye euh, ñoom Moussa Bathily euh, ñoom nga xamee ni ñoom daal ñoom itam dañu bëggoon indiwaat seen pàcc daal si terre cinéma Sénégal donc li ko xamee c'est vrai que ni deful ay film yu mag a mag wante nag daal ku xarañ loon si maanaam daal topp cinéma bi défendre ko jox ko parce que foo ko gisoon festival bi muy festival Ouagadougou wala bo festival Carthage euh, maanaam daal disons daal représentant wu cinéma sénégalais la woon ñëpp xamal nañ ko yooyu même si aussi bi ñuy def ay réformes ak yooyu yëpp maanaam daal mi ngi si woon na si dugaloon na si loxo ci lu toll nag si ñetti jun eh, juróomi junni ngeen baal ma ci ay nit ñoom la ñu teg loxo ñi ko def nag moo di waa police eh, ci jamono couvre-feu gi fee ca banlieue bu ndakaaru loolee mooy bilan bu commissaire centrale bi nga xamante ni moom yokk na ni sax am na ñi nga xamante ni tej nañ leen loxo eh, ci loolee te tegaale leen ay daan ci koppar yoo xamante ni joxe nañ ko manifester yi ñu amaloon nag ci banlieue bi ci ñaari fañ yu njëkk ci couvre-feu gi tax na nag ba ñu teg loxo lu toll si juróom ci ay nit juróom-ñett ci ay nit yoo xamante ni ñoom yóbbu nañ leen kaso ndax dañu doon salfaañe tekk tekkaaralu nit ñi ci loolee ñu teewlu kii di Madjibou Leye di commissaire central bu Pikine Guédiawaye ci micro wu El Hadj Moussa Thiam nga xam ne mooy ñu ngi interpellé 1240 personnes semaine bi ci topp maanaam du 17 au vingt 24 ñu ngi interpellé 1204 personnes semaine bu mujj bi nag ñu ngi interpellé 1620 personnes muy junni ak juróom-benni téeméer ak ñaar fukki nit euh, ci amende forfaitaire première semaine bi ñu amoon nañu 1 mille 2 millions 300 et quelques mille semaine bi ci topp am nañu 1 million 800 et quelques mille semaine bu mujj bi am nañu 3 millions 700 et quelques mille. boo defee totalu ñu ñu jàpp pour couvre-feu kon da xalaat ne gàtt gàtt am nañu 5000 nit ñu jàpp lu mu néew mu bari. ñi nga xam ne dañu leen di jàpp parce que solo ñu masque bokkuñu ak ñi nga xam ne dañu leen couvre-feu bi. ñooñu it dañ leen fayloo contravention bàyyi leen mais ñi nga xam ne dañ doon manifester premier jour bi ak deuxième jour bi te bu ñu continuer waatee manifester noonu parce que loolu déli mooy ñi nga xam ne dañ doon manifester ne couvre-feu du am di taal di kii ñooñu ñu ngi toll ci 80 personnes première nuit bi ñu ngi jàpp ñeent fukki nit ak juróom-ñett nuit bi ci topp ñu ngi jàpp fanweeri nit ak ñaar boo ko boolee defe naa mooy 80 personnes donc jàpp defere nañ leen au parquet procureur aussi placé leen su mandat de dépôt jaajëfal naa leen ci déglu bi ginnaaw bu fukki wax fukki simili ak euh, benn bootoo ci wi fi la ñuy ndarkeppe bi le bulletin d'information woy leen di safoo programme Sud FM seen rajo